saytu jëlee fi laisser aller dox ak sa gox jógal dox ak sa gox wareeku bépp sénégalais dox ak sa gox jógal dox ak sa gox di man di yow di kii di kee dox ak sa gox jógal dox ak sa gox liggéey liggéey liggéey ak sa gox jógal dox ak sa gox dafa jox jàmbaar nga dox bul nekk yàmbaar sa. ñu leen di nuyu di leen euh, gërëm di leen sant ci teewlu bi di leen wax ne tey jii nii ñu leen dalal ci seen émission dox ak sa gox dox sa gox tey mu ngi ci biir cité de fonctionnaires cité des fonctionnaires mu ngi nekk fii ci biir Diamniadio nekk cité boo xamante ne nii nguur gi moo fi taxawaloon ci atum 2015 nekk cité boo xamante ne nii euh, ci projet bu ñuy wax une famille un toit ci la euh, juddu woon ñu ànd ak yéen dugg ci biir cité bi dem waxtaan ak résidents yi ci seen quotidien ah xanaa bu ñu leen falee nag sañ leen a càmbar loolu mooy observatoire suñu baat yiñ leen dénk moo waral ñu am sañ-sañu saytu saytu jëlee fi laisser aller dox ak sa gox jógal dox ak sa gox wareeku bépp sénégalais dox ak sa gox jógal dox ak sa gox di man di yow di kii dox ak bu dee nu dëkkuwaay bi jiitu ñëwee fii projet la woon boo xam ni nguur gi moo ko sanc boobu temps ñuy wax ministère de la famille moo waxoon une famille un toit ci programme bi noonu la tàmbalee ñu jël waa administration bi ñu bëri bindu ci bi mu demee ñu commencé ñu woo nit ñi ñi ci bëggoon ñi ci waroon a mën a bokk parce que dañu jël ñi bindu ñëpp du ñëpp la ñu woo ñu bindu ñu xool saytu seen i kayit après ñu wax ñi leen mën ngaa bokk wala mu ngeen mënoo bokk ñi ci mënoon bokk ñu bëgg bokk bokk ñu mun am na ñoo xam ne bëggoon ñu bokk mais bëgguñu bokk mun maanaam bëgguñu ñu toxu si parce que boobu jamono fii dafa sori yoon mi yëpp nekkul woon li yomb tey nii ba ngay déplacé wu jógee Dakar ñëw fii ni mu yombee boobu jamono yombul woon moo tax ñu bëri sawaru ñoon ñëw fi noonu la projet bi tàmbalee ba ñu ñëw fi ñi fi njëkkan ñëw nag depuis 2015 dañ fi ñëw eh, man mii bokk naa ci ñu fi njëkk man ba ñëwee ñoom làbba ñoom euh, sal ñi toog nii juuk ah, lu fi nekkoon daal matuloon fukki famille bi fi ma fi fekk man ñoo ñu nekk nag tàmbali di def nañ fexe ni ñu dëkkoo fii parce que nit fu mu dëkk ay salté commencé génn foog ñu tuuri ko waaw fu nit fu mu dëkkee benn place euh, salté yoo rek génn foog ñu tuuri ko ñu dem obligé dem wax ak ma mairie ba oto mbalit di fi dugg di génnee noonu na ko noonu jafe-jafe yu ñuy jànkonteel daal ñu dem ci la des résidents. Il fi pratiquement avait pratiquement rien donc on s'est vraiment battu euh, avec euh, aussi bien le promoteur de la cité qu'avec les autres entités administratives et tout ça. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait rien. Donc, pour il a fallu vraiment euh, se battre pour que vraiment c'était bien à niveau. Mais aussi, on a trouvé des gens qui sont très volontaires, des gens euh, du seen poste du dara quoi du bien matériel ils se sont investis corps et âme pour vraiment que cité bi jëm ci kanam donc ba ngeen fi ñëwee gis ngeen réalisation yu bari yo xam ñu ngi fi la plupart du temps c'est des gens des habitants du quartier comme on peut les appeler les volontaires de la cité qui se sont débrouillés corps et âme vraiment def lépp seen kéemtalaay kattan pour cité bi yegg ci niveau mu tollu ni tay madame Ndiaye mi bokku na ci def naa ni su ma juumul moo fi ñëk dëkk ci def fi liggéey bu rafet nak dem ci jigéen ñi ku fi dukk si ku fi tuxu si mu dem ba ci yow dalal la waxtaan ak yow jigéen ñi mu organiser leen ñu def kuréel solidarité bi noonu la tàmbalee ci ci ci dëkkuwaay bi moom muy wéy ba fi mu toll nii. cité bi moom wax dëgg yàlla macha allah jigéen ñëpp benn lañu euh, ñu ngi góorgóorlu ñu ngi yëngatu ci ay activités yu baree bari yoo xamante ne nii ci wàllu développement la. am nañ fi ay mbootaay créer nañ fi groupement GIE boo xamante ne GIE bu mag la GIE bi am na presque presque quatre-vingt-dix femmes ñu ngi bokk ci groupement boobu te ñu ngi def ay activités yu ndaw euh, yoo xamante ne nii bi ñu fi dëkkee ak léegi yàggul mais ñu ngi góorgóorlu fexe nañu ba am fi ay dañuy organiser ay kii nu mu ay conférence yu mag ci cité bi dañuy organiser ay des fois ay ay yoo xamante ni daal luy dundal dëkkuwaay la. dañ daan am ay jafe-jafe ñuy jóg di ko dox boobu temps association amul bu ñuy dem ci promoteur bi di wax ak moom ki nga xam ne moo doon tabax fii di poser suñu doléance lettre yi ñuy bind ci entête bi dañ doon bind association des résident mu ne mais est que association bi am na mu ne ko amagul mais danay am léegi yàlla def ñu ñu formaliser ko maanaam dox ci secteur général bi

ginnaaw jafe-jafe yi nga xamante ni waa cité de fonction ñu koy dund askan wi fii yeewoo taxaw nañ tem ngir ut ay saafara ci seeni jafe-jafe ba tax na mu ngi tàllal loxo autorités yi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo ci biir gox bi. bu ma jox la benn misaal bi ñuy door ñëw fii boobu tal yi defaruñ ko fii bu tawaan fii yëpp dafay taa ñu wax ak moom ba sonn bëgguñu ñu déglu ñu jël suñuy matuwaay def ba nga xam ni. moom si boppam moo demandé ni ñu foog ñu dajeeg moom ñëw fii la ñëw ci buntu jàkk ji fii la ñu fu tant mu indi équipe am bu muy liggéeyandoo fépp ñëw toog fii ñu toog wax mu daal di jël engagement ne du moom sax moo jël engagement mais ñoom moom ci boppam seen seen société bi nekk fii di to di tabax cité bi dañoo bokk ci beneen kuréel beneen euh, entreprise bu gën a yaatu te entreprise boobu buggul dara yàqu buggul image am yàqu bëggul ñu koy tudd ci lu ñaaw ñooñu nee nañu pare nañu dugal cent vingt millions je crois su ma juumul millions la ñuy débourser pour ñu régler tout ce qui est infra infrastructure ici koku benn rek la ci li ma li lay wax la association bi moko moko doxal boppam. bi ñi sant ci école bi fi euh ah, dañ ñëw toll tolloog ay xalé yu wara a ci école mais école bi nekku fi ñu dox ci bañu créer ñu école bi ci papier président association bi nekk fi ne na ñu loué kër parce que dañu bëggoon def abri provisoire mu ne kenn du def abri provisoire ñu loué kër pendant ñetti at wala ñeent mu di ko fay ñu yónnee ñu fee ay jàngalekat xale yi di ci jàng parallèlement ñuy continuer di dox di dox ngir mën a am ku ñu tabaxal place bi école bi am maire bi doon ñu dikk ñaari ñaari ñaari classe diñ dikk ñaari classe ñu dikk ñaari classe yàlla def na dox nañ ci ba tey jii foofu ñu doon wax ñaari classe dañ fay am fi mu nekk fukki classe ak ñaar ñu ngi foofu léegi li ñu dese mooy ñu tabax bloc administratif bi wax nañ ceeg mairie bi ba jox nañu kàddoom yónnee na fi sax nit ki nga xam ne moo ko war a tabax ci ndorteel li dafa waxoon ne <clears throat> daf am ni mu koy tabaxee mais ni ni mu bëggoon tabaxee ñun arrangé wuñu ñu ne ko soo ko mënul def ni ñu ko bëggee ñun defal ba fi sa xaalis nga arrêté foofu ñun ñu continuer suñu bopp foofu mu ne ñu léegi dafa am kàmb gu fa nekk te ki nga xam ne moo war a liggéey lii daf ko boole ci coût bi maanaam li ñu ko war a fay

am commission bo xamantane mom mo yoré yore wàllu ñun ci lañuy dox ci lañuy ñuy yëngu donc euh, contracté avec ben société spécialisée de gardiennage bo xamantane chaque nuit ñom dinañu def ay patrouilles voilà di ko di xol di jéem sécuriser nit ñi ak seen bien hein, avec euh, le concours évidemment des populations populations yi nga xamante ku ci nek weer bu ne am na loo war a joxe donc euh, loolu c'est important bon parce que nit ki fi nga dëkk yow yaay njëkk aar sa bopp laataa keneen di ñëw di la ci fekk ah donc organisation boobu teg nañu ko te depuis boobu ba léegi yàlla mi ngi suturaal mi ngi ciy am ndam waaw donc loolu aussi c'est c'est c'est c'est important ñu ngi ko doon souligner loolu aussi bokk na ci réalisation yi nga xam ne association bi def na ko parce que dañu ne euh, bul toog rek naan état moom moo war a assurer la sécurité publique donc moom moo war a def lépp ñun dañuy jéem di def lu ñu mën lu ñu dolli ñu ca waaw donc euh, ci cadre boobu la ñuy def association boobu te boobu ba léegi euh, yàlla ñu ngi def ñu ngi ciy am euh, ndam. bu fekkente ne dañuy da nga yëngatu ci dara mën di am dara ah di nga jàppale sa borom kër waaw parce que loolu moom defe naa ne jigéen yëpp la. jigéen yi ñoom ñoo yore kër yi daanaka boo xoolee li ëpp yëpp ñoom dañ siy jàpp xanaa jigéen bu jàppul ci dara waaw te fii moom wax dëgg yàlla bëgg nañu liggéey soxla nañu financement jigéen ñi ku leen financé ñu liggéey nangu nañoo liggéey jàmbaar lañu même ci transformation céréales yi équipe bi ko fii def sax amuñu sax foo xam ne ni ay machines yoo xam ne day day séché par exemple araw yi ñuy defar ak cere yeeg yooyu amuñu espace bu doy même ñun am na yu bëri yoo yu bëri yoo xam ne

bu ñëwee ci place bi nit ñi dajale jël jox jox nit ki ci ndimbal léegi ñu ne la ñu samp bu ñu sampee caisse de solidarité boobu ku am dëj xew sax lañu ñu wax waxuñu sax dëj dañuy xew bu dee xew-xew bu neex la wala bu naqari ñu jël ci kees bi jox ko jàppalee ko ko ñu jënd fi ay bâche bu baax bu xew-xew jotee bu fekkee ne lu naqari la dañ koy jël bâche bi ak chaise yi jox ko te du fay bu fekkee ne dafa seet la wala takk euh, nu mu tuddati takk la wala ngénte bu boobaa nit ki dana fay tarif boo xam ni tarif bu ku dëkk ci dëkk cité bi la léegi loolu dama lay woon ci benn exemple boo xam morgue bi li ko li ko li ko taxaw morgue bi nekk ci jàkk ji fii dañoo am ay yoon nit génn fi àdduna du am fuñ ko denc ñu génne dem ba jëm ñaajo léeg-léeg ñu am jafe-jafe def ko ñu dem ba risque léeg-léeg ci la ñu woote ci groupe bi nga xam ne moo existe ci bi ne am nañu soxla pour taxawal fii morgue li ñu ko war a defaree nangam la am ñu génnee seen xaalis ci saa si pour kon morgue boobu mun a aw loolu mooy wane ne nit ñi dañuy jàppalante fii dañu am solidarité dem mooy njaay yàggul dara am na jigéen bu ñëw fii daje kuréelu jigéen yi fi nekk dafa ñëw waxtaan ak ñoom bay génnaat yàlla def oto fiir ko fii mu am ci accident bu metti ñu yóbbu ko hôpital bi ñu ko waxee fii ci cité bi ketal ko dégg naa su ma rek dajale nañ fi lu ëpp cinq cent mille yóbbul ko ko pour mu nga tëdd hôpital donc solidarité dafa am fii dañu jàppalante kooku ci wàllu dimbalante nit ak nit mais comme ni la ko waxee woon comme li li tax association bi jóg mooy fexe ba su nekk ni yemb lépp lu ñu gis loo xam ne dañ ko war a xeex dañ dem ci kuréel bi ñu yaakaar ne su suñu fa demee dañ ko xeex kuréel bi nga xam ne yaa suñu yaakaaree ne suñu fa demee dañ ko dañ fa mën a am ndam ñu dem foofu jooytu fa liñ fay jooytu yow dox ak sa gox waaw fu ngeen ànd jëm ba république des citoyens fa démocratie gën a am jëm lépp jóge ci askan wi dellu ci moom di li ñu gëm njiit yu fonk askan wi dogu ci ay bëgg-bëggam doon ay royukaay am lu ñuy jomb tey jubal ndenkaane bu amul saytu dafay yomb ci luubal ñu doon citoyen modèle ngir ñu gox bi di suñu yitte ñaari at walla ñetti at ci ginnaaw maanaam boobu Covid bi mi ngi door a tàmbali bind nañ fi dajale lépp li nga xam ne moo nekk ay jafe ci suñu dëkkuwaay bi fii parce que ñun bi ñu fiy door a dëkk si fii benn usine jegewuñu woon fii ñu dem ba usines yi wër ñu am ci usines yoo xam ne boo yeewoo suba doo noppalu dimanche sax doo mën a noppalu ñu bind loolu yëpp dal tënk ko ci kayit ñeneen ñi di jël fii di tuur ay ndox yu setul am ñoo xam ne ay canal bu jaar suñu ginnaaw fii maanaam coono yi am ay jafe-jafe yi ñuy dajal ñu boole ko loolu yëpp tënk ko yóbbu ko ci sous préfet bi fi nekkoon ci yooyu jamono mooy Omar Dia wax ko waxtaan ak moom mu recevoir ñu déglu ñu bu baax ne ñu nag dégg nañ bu baax li ngeen di wax nii te dinañ ci taxaw parce que droit constitutionnel la pour ngeen am cadre de vie bu normal kooku le droit à l'environnement sain kooku c'est un droit constitutionnel kon dinañ leen ci jàppale lu mu mën te dañu woo ñëpp ñu nga xam ne ñooy kilifa yu war a tontu ci loolu ñu dajaloo toog fii saytu mbir mi génne ci ay ay ay ay saafara te am na usine boo xam ne ñoom tëj nañ ko fii ndax usine boobu dafa doon def da doon jee am jeexital bu bu bon ci wér yaramu nit ñu dëkk boor bi moo tax usine boobu dañ ko mujj tëj problème yi nag jeexul am na ba léegi am na ay mbir yu des parce que ñu ngi dend ak beneen usine fii bu defar ay briques bu yeewoo suba huit heures bu doteer ñu ngi tàmbali liggéey ñu dëkk góor boobu yëpp kenn dootu am jam fii bu ngeen seetloo nii ay entreprise ñoo ñu wër mais boo xoolee boo xool presque euh, euh, deux tiers yi amuñu benn action bu ñu def pour jéem a yombalal suñ suñuy fii bi. au contraire am na ñoo xam ne par exemple entreprise yi nag juste environnement immédiat bi il a fallu que ñun ñu organiser wu dem si ñoom parce que dañu def ay ay ay pollution sonore par exemple am na bu fi nekk ay briqueterie bu fi nekk am na bu nekk fee si ginnaaw dañu dem ñu ñi ñi ñi ñu def échantillon délégué bi représentant euh, ñi nekk ci association bi ñi xool kuréel yi jeunesse bi yëpp aussi ñu dem ñaan audience ne leen ah ñun gis nañu vraiment fii c'est une cité dortoir mais ñun dañuy ñëw bu ñëwee fii pour ñu noppalu problème la matin soir ay bruit yoo xam ne du lu jeex ñu laaj leen est-ce que am ngeen ay kayit ñu neen ñoom amuñu kayit ñu neen mais ñun dañuy bëgg vraiment yéen parce que bénéfice yi ngeen am noon il faut que aussi ngeen am améliorer seen cadre bi ngeen liggéey au moins ngeen xaw a bruit bi boo xam ne boo moo ñuy sonal mu xaw xam nga mu xaw loo xam ne dañ day day day dañ dañu ci trouver solution donc finalement ils ont pris acte euh, def nañu de telle sorte que juste bii bu nekk fi à l'entrée euh, tay bruit bi xawna na voilà mais ci côté ay aide ni wala ay investissement ñu def ba légui dal, c'est vrai que jëloon na ay promesse nan tay pavé fait. ñu may ay pavé ñu pavé rue boobu non moy tronçon bi entre croisement bi ak entrée cité bi mais ba légui dal c'est pas encore effectif bon amna ben aussi entreprise bi dafar faire moy Fabri Métal ñooñu moom vraiment temps yi doon yëngu pour tabax suñu école bi ñu may nañu ay fer voilà vraiment ñu may ñu quantité bu bu doy ñu fi ñu kii heureusement que bon après promoteur bi ñëw gars yi ñëw ba tabaxal ñu mooy état bi école bi ñu tabaxal noonu donc fer baa ngi fi ñu teg mais fer bi dañ ko ne après dañ koy utiliser parce que bëgg nañu dans le cadre activité reboisement ñuy def dañu bëgg planté ay garab jël fer bi wourlé ko def ko ay grillage voilà donc ñu amul jëriñ quoi. chaque année dañuy mën dañuy def ay ay campagne def reboisement bon reboisement yi ñëk a initié moom mooy bi ñuy def entre entre cité bi ak euh, buntu euh plutôt ak route nationale bi donc euh, reboiser nañu garab yoy machallah fi mu nek ni danaka mag nañu à l'intérieur aussi de la cité chaque année dañuy def campagne de reboisement le long des routes bon ren aussi inchallah allah bëgg nañ ko def ci ginnaw pour dem ceinturer cité bi def fi ay garab yo xamante dina nek ay arbre épineux ak yenen arbre yo xamante non seulement dina rendre difficile accès euh, nit ñi mais en même temps aussi les animaux errants parce qu'on est dans une cité ouverte bu on est dans une cité fermée nga xamné ben entrée la ben sortie su boba ben point rek ci lañuy focaliser mais comme lolu amul donc dañuy jéem en attendant comme ni EG waxé légui avec euh, barre de fer yi nga xamné amnañu ko cité bi mayé ko avec des arbres épineux de sorte que au moins ñu jéem aussi renforcer davantage sécurité nit ñi fi nek ak euh, voilà sen sen sen bien parce que bu il y a l'hôpital de Diamniadio qui sont venus ici bon ils ont donné des prospectus pour nit ñi fofu dem ñu xol pour au niveau de sen sen pour respiration parce que euh, vous le savez on est entouré par des usines usines yu si bari c'est des usines yoo xam ne li ñuy liggéey sax ñun xamuñu ça peut être des substances nocives yoo xam ça peut affecter les gens donc nous moo tax xam naa loolu ñoom la xam moo ñu invité la plupart ici des gens ñu ñëw foofu def ay visites pour xool seen l'état des poumons te je sais que y a beaucoup d'usines qui sont là yoo xam ne qui sont extrêmement nocives quoi kooku aussi c'est un problème boo xam bu ngeen ñu la mairie ñu bu ñu waree dem marché dañuy da ngay paas dem ba jam ñaajo jafe-jafe ji boobu sax moom lañu amoon ba tax ñu jàppale woon ñu ñu am machine wal bi parce que pour nga wal benn kilo dugub da nga doon paas dem fay pa fay 400 francs dem ba jam ñaajo marché bi pour wal ko fa dellu siwaat ndugg bi aussi amuñu dara lu loo xam ne nii am marché xam nga fu mu amul rek jigéen dañuy xaw a sonn. ndax il faut nga génn paas dem ba jam ñaajo pour jënd lu ndaw rek benn carotte sax boo ko soxlaa il faut nga paas dem ba jam ñaajo lu moo tax loolu soxla nañ ko des fois bu tawee ndox bi yëpp day wàcc si si cité bi pour nga génn dem moom day xaw a métti marché bi aussi doy na waar da ngay dem marché bi dafay tooy mel noo xamante ne nii moom suñu sañoon daal yooyu moom euh, ñu jàppale ñu ba suñu cité bi ñu mën fi am marché waaw ah, ma soxla nañ fi marché vraiment ndax cité bu toll nii li fi dëkk ci ay nit yëpp te amul marché xaw na doy waa trop. ñun fàttaliku ma foofu mairie defee loxoom ci ci côté lamp yi fexe nañu laaj nañ ko ba sonn bi ñuy dem sax ba taxawul fii ci mbedd mi ay làmp solaire wax nañ ko mu ne dañu indi lamp lamp yi fii la ñu romb dem ba buntu Sébi frontière fi suñ frontière ak suñ diggante ak Sébi fa la yem bu jógee fi jaar nii dem ba biir Sébi bunti mais cité bi fii benn lampe solaire nekk fi yàlla dimbali nañu fii suñu suñu biir suñu taxawaay fexe nañu ba fii boo fi ñëwee guddi dana ngay foog ni ci bëccëg nga nekk ndax lampe yu leer am na ñu dëkk cité port ñu ngi ñuy wax ñun dañu bëgg si dëkk si yéen parce que fii fii moo leer donc ñeewul leen ci wàll boobu suñu leen gënoon nag comme ñëpp ñi xam ne ay citoyen lañu comme ñëpp bokk ci commune bi bu waa mairie bi ñëw lu ñuy laaj ñu war ñu ko defal. donc fii on a un problème d'assainissement c'est boo xam ne qui est On s'est battu, on a combattu, on a fait des pieds et des miens partout, au niveau du promoteur comme aussi au niveau de la mairie, pour vraiment nous dimbali Mais vraiment le problème reste là-dedans. Donc moi vraiment bu ñu ci mënoon jàppale dina trop. Le deuxième point moi j'ai toujours insisté euh, dedans depuis pratiquement le que fi dëkkee moi le problème de l'accessibilité au niveau de la cité. on a un problème parce que il y a ay jeunes yu bari ñoo fi nekk te seen doom yi ay xale lañu dañu donc traversent ces filles pour aller à l'école ou pour aller ailleurs ou bien même des mères de famille qui ont ay mag déplacé mais Talibi, c'est un euh, c'est une route accidentogène vraiment c'est la preuve tout dernièrement am na kenn fi fait un accident ici boo les talibi ni c'est des gens qui sont munis qui sont mus par l'appât du gain affaire xaalis ay jakarta la ay clando bus la ay camion donc nous ne nous occupons pas du problème la vie des gens Nous li nous nous a la mooy l'appât du gain part du gain nag moom foo ko waxee kooku vitesse précipitation ak temps donc nous, vraiment il faut ñu dimbali ñu fi ñu defal ñu fi une passerelle ou dans quelque chose boo nous ne dina la circulation parce que nos enfants sont en danger nos familles sont en danger même les visiteurs qui viennent ici nga devons maîtriser wuñu tali bi la plupart temps y a des problèmes li nga xam ne ramassage des eaux ménagères Donc aussi vraiment bëgg nañu autobus di passage bi régulier C'est vrai que ñun au début on avait un sérieux problème nous nañu sax ba engagé une société privée Nous avons fait chaque fin de mois dañuy fay quatre mille francs maintenant nous avons ñoo engagé nous ils ont dit que non c'est la compétence de la mairie mairie bi moo war a ñëw di ramasser ordures yi bon li ñu aussi vraiment le passage bi régulier pour ñu mën tenir en compte ñooñu parce que ñëpp yemuñu. canal bi nga xamné dafa jëgé tamu shipping shipping tali euh, canal boobu waru ñu ko mëna défar ba nga xamné du nekk un canal informel quoi bo xolé dafa nekk ben trou la rek bu gars gas nonu légui euh, à sa sortie à la fin c'est au niveau de la cité ici donc ndox yoy di ñëw yépp fi day ñëw dajaloo amul ben affaire bu ko mëna évacuer pour mu dem donc ñun dal dañu nekk ben genre cité bo xamné cité de réception des ordures ou bien des des des eaux des eaux usées moo tax fu mu nekk nii ñun toute euh, toute l'année on a des moustiques c'est est la seule cité boo nga xam mën nga fi dund douze mois sur douze ngay takk moustiquaire parce que xam naa ne aussi c'est des trucs yoo xam c'est c' des c' des nids à moustiques quoi nous moo ko quoi donc loolu vraiment il faut ñu jàppale canal boobu nekk de canal boo xam c'est pas érigé en bonne forme dafa nekk loo xam ne rek dañ ko gas noonu moom mu nekk loo xam ne ndox mi day ñëw pour dem moo bu ngeen ñëwee ci station yi bees yi nekk fi vous verrez des tas d'eau yoo xam ne ñu ngi foofu la jóg loolu day impacter négativement sur l'environnement. fii am na place boo xam ne dañ ko jagleel case de tout petit am na place boo xam ne centre autisme mooy xale yu xaw a euh, doy waar noonu euh, am na place boo xam ne espace public la ay espace sax mu ngi fi am na place boo xam ne centre commercial la am na benn espace boo xam ne ñu ngi ko prévoir ngir euh, poste de santé. yooyu yëpp ak jàkka sax am na fi place boo xam ne ñu ngi ko pré prévoir bokkul ak li ngeen visité woon léegi place bi ngeen demoon léegi au départ salle de prière la woon mais fi war a nekk jàkk ma nga fële ci place bi ñuy wax cité port foofu ci biir la am centre islamique ak centre ak euh, foofu la jàkk ji war a nekk mais dañ cee dox dox ci lu sonn ëpp na at ñu ciy dox ba këyit yëpp li ñu dese rek mooy bureau des jox ñu këyit bi ñu koy jagleel ba ñu mun a tàmbali parce que am na ñu ko war a mun a financer mais munuñ ci dem moo ñu moo ñu tënk ba léegi mënuñu ko yeggali te loolu am na ñu ko war a mën a liggéey kooku ci wàllu wotu côté école bi la ak infrastructure yi donc yoon am na fi place lépp lu mat lu ñu war a mën a defar dëkkuwaay bi yemb mais ku ñu jàppale ci wàllu kayit peut-être ak ci wàllu euh, tabax bi moo des tuuti. municipalité bi ñu ngi koy xaar ci wàllu yooyu ma site nii nga xam ne euh, ñu jëm ci ay éducation euh, yooyu war na ci mën a dugal loxoom ñu leen di xaar ci case des tout-petits bi. bu dee wala lu jëm ci centre commercial bi aussi bu dee dañu mën a am un promoteur moom mu mën na bañ a nekk laa mairie tout court mën na mën nañ ko def partenariat boo xam ne maire bi dina ci bokk un promoteur dina ci bokk ñun ñi sax suñu biir fii war ci mën a bokk parce que ñun li ñu gënal su dee centre commercial bi li ñuy gënal mooy centre commercial bi bu ñu am ñu ci mu ñu am retour mu bañ a nekk loo xam ne dañ koy samp fii rek keneen di ci liggéey di jël di dem mais mu ñu muy dellu soit ci ñun ba nga xam ne bu ëllëgee bu suñ tali yi yàqoo du ñu xaar kenn pour defar ko parce que lay génn ci centre commercial bi dañu mën a may may ñu defaral suñu bopp suñuy tali ñu xaar aussi autorité muy au niveau de la collectivité locale ou bien muy ci administration centrale bi fii assainissement bi doyul ba béréb bi ñu nekk nii bi ñu koy tàmbali c'était prévu pour des logements sociaux mais lu ci ëpp te fi dafa nekk place boo xam ne place dafa argileux maanaam dafa am ban suuf si du ndox mi du du bi du naan ndox léegi fii ñoom ni ñu ko defaree yëpp ay fosse moo fi nekk mais fosse yi dañoo yemamaay ci boo ko xaymaak ñi fiy dëkk ci kër yi day gaaw a fees nit ñi dañuy xaw a sonn ci di woo tout temps oto yi ñuy di ko manq loolu dafa xaw a diis ba nga xam ne léegi dañuy fexe ñoom ni ñuy jëlee ndox mi di ko awale maanaam ndoxu raxas li ñuy raxasee wala li ñuy fóotee ñu koy jéem a sottiwaat bu génn fii dafa am canal boo xam ne li ñu ko li taxoon canal bi jóg mooy ndox mi war a jaar ci cité bi fi lay jaar pour génn kaal bu kanaal bu wër cité bi nii fi lay jaar yi daan jógee sebi jóge boor boobu yëpp ñëw daal war a jaar ci biir cité bi dañ ko defal benn canal bu contourné génn ñii xam ne dañuy raxas am na ci yenn koñ yoo xam ne dañuy jël ndox mi di ko tuur ci regard yi ñu prévoir woon pour ndox pluie taw bi ndox moomu di dem ci canal boobu di dem mais li ñu bëgg mooy ñu dimbali ñu ci defar assainissement boobu ba nga xam ni dana yemb nit ñi dañ ko attan kooku au niveau local ou bien au niveau central war nañ ci chaleur, lu bari parce que ah, au-delà même de cet aspect de dégagement de l'eau mais il y a là le problème de santé wér problème wér-gu-yaram lay taxawal war wàllu cet lay taxawal donc ñun rek kese waa cité bi fi mënuñu ko régler foog maire yi service d'hygiène le au niveau central ministère de l'assainissement ñoom faut que teg seen loxo pour ñu régler ko de manière définitive xam am nañ ci ay réflexions yu ñuy def action xam naa du ñàkk bu ñu dajeek ñoom ñu mën ko teg ci table wax ne lii lañ ci parce que am na ci yenn béréb yoo xam ne def réglé nañ fa lu mel noonu ñooñu mel jafe-jafe yu mel noonu ñun yaakaar nañu ñu royee ci ñoom war nañ ñu ci mën a indi solution kooku yeneen donc ci li may wax ay jafe yu ñu dajeel daje jànkonteel yaakaar ne am nañu ci autorité locale yi wala centrale war nañ ci mën a jàppale pour ñu génn ci. bëgg nañu cité bu set cité bu rafet bu sell dëkkuwaay yoo xamante ne nii. jigen ñi dinañ duñu am benn jafé jafé xalé yi aussi nek ci école yu baax di jangit duñu am jafé jafé loolu dal mom bëggon nañ ñu jàppale ñu ci trop surtout walu mbaline mi soxla nañu marché soxla nañu financement pour jigen ñi fi nek te japp ñu ci benn activité mëna liggéey hein soxla nañu dal vraiment yu bëree bëri. en fait di leen remercier di leen gërëm encore parce que vous êtes l'oreille euh, et la voix de la cité de la commune sax je peux dire. Je nañ ci sen li euh, ngeen ñëwé ñi parce que dina une ouverture quoi nit ñi dañu xam peut-être cité bi bo xolé c'est une cité bo xamni qui est un peu enclavée boo rombee ci tali bi buñ la waxé ni amna cité fi buñ ci baras am ko xam mais on voit que avec l'effort de la de la mairie on voit que affaire baa à commencé di am visibilité et puis cette action bi ngeen def ni aussi ça concourt à la visibilité encore de la cité on vous remercie vraiment pour ça. vraiment engagement citoyen ngeen dox ni jóg ñoo fekk ci ay nit yi. xool li ñuy dund ngeen wane ko ba nga xam ne ñi ci war a teg seen tànk xar ci seen tànk tubéy ñu ngi ciy dox vraiment loolu dañ leen ci gërëm di leen sant te di ñaan yàlla li ngeen dox yàlla jàppale leen ci ba mu gën a antu alors ñuy dem jàpp euh, ñaan waa mairie ñu xool bu baax di déglu déglu te am naa yaakaar ne dañ koy def léegi parce que gis nañu jamono yii ñun am nañu benn concert bu ne foofu te gis nañu tamit waxtaan nañu seen bi yéen ñëw seen euh, équipe bi ñëw fi di ñu fi di def tournage bi di ñu waxtaanee gis nañ ne ñu ngi commencé di déglu nit ñi di jéem a indi ay saafara moo tax ñu bàyyi xel parce que nit ñi bu leen tegee ci béréb léeg yéen a jiite nit ñi collectivité locale proximité la par rapport aux population pour gën a mën a régler problème nit ñi waaye donc foog ñu déglu nit ñi di xam lan la ñuy dund pour mun ci indi ay saafara donc ci wàll boobu la ñuy wàll woo waa mais waa surtout autorité locale waa cité bi aussi ñu ci bëri ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ñun dañuy exécuter rek

alal di ko ci def ngir loolu mën a sotti ñu ngi di gërëm di leen sant. kon mbokk yi lii la ñu indiloon tey ci seen deuxième numéro dox ak sa gox di euh, gërëm bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne ñoom lañ fekk si fii tey muy association de résidents de la cité des fonctionnaires di gërëm gërëm bu baax a baax di gërëm aussi équipe technique bi nga xamante ni ñoom laa àndaloon muy euh, asna ci caméra bi alaa jigéen man ci réalisation bi leen jox di daje ci seen beneen numéro dox ak sa gox jërë ngeen jëf ak sa gox jógal dox ak sa gox. wareeku bépp sénégalais. dox ak sa gox jógal dox ak sa gox. di man di yow di kii di kee. dox ak sa gox jógal dox ak sa gox. liggéey liggéey liggéey liggéey. dox ak sa gox jógal dox ak sa gox. saytu jëlee di laisser aller. dox ak sa gox jógal dox ak sa gox. wareeku bépp sénégalais. dox ak sa gox jógal dox ak sa gox.